الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض الكريم إلى اليوم كان شره مستطيرا وأشهد أن لا xam-xam yi boo demee ci masrur dafa wax ne wala yàlla laachi mooy fi yàlla ñu waxee Moussa ne ko wa waa'adnaa Moussa salaasiina laylatan wa atmamnaa bi ashrin Moussa yàlla ko dig ne ko danaa ko danaa mottali dix muy quarante masrur moom nee na wala yàlla laachi yi bi ñëw ci wal fajir yooyu nga imaam yi d'accord dafay yàgg ñàkk naa ko dafay yàgg beesu beneen bon borom beneen borom xam-xam bu ñuy wax daxaak imaam daxaak ne ko man d'accord ma de man wal fajiri wala yaali laashir yi naa ko fukki fan yi mujj ci weeru koor beneen beneen borom xam-xam pël muy Ibnu Abbas Ibnu Abbas nag suñu mag yi Sénégal yëpp a d'accord ak moom. boo xoolee Cheikh Amadou Bamba dafa teg tànkam ci Ibnu Abbas ne Maalik yu la boo xoolee sunna bi fa la ko teg boo demee Mawlaana Cheikh Ibrahima arji am yi gën a wér ci Ibnu Abbas boo demee si al Maalik noonu Sénégal li ko wër Afrique yëpp sax dañoo d'accord Ibnu Abbas lu tax fu mu waxee rek dinaa ñu yonent bi nee na lii Ibnu Abbas ñëw ne gis ne ne wal fajri wal layaalin al ashri yàlla gën mooy fukki fan yi nekk ci commencement ci weeru arab muharram nga xam ne asura foofu la nekk ba ci yàgg mu ne déedéet gis naa sax lu gën a wér loolu gis nga borom xam-xam wala fukki fan yi nekk ci muharram la njëkk a wax waaye bi mu demee ba dégg wax yonent bi sallallahu alayhi mu ne ah damay tënku nag ci la yonent bi ne gis naa ne wal fajri wa layaalin ashri fukki fan yi yàlla gën mooy fukki fan yi tabaski zil hijja mooy fukki fan yu nekk nii xam nga yàlla tànn na ay jour yu baax waaye benn fan rek la gis nga fukki fan yi mooy fukki fan yi nga xam ne dafa rangé wu yëpp baax am na benn fan bu baax am na ñetti fan yu baax waaye ñii dix jours la yoo xam ne yëpp yàlla ñu ne baaxal la kon dix jours dix jours yu mel nii ci at mi at mi rek moo baax weer bi rek moo wal fajri wal yaali al ashri ibnu abbas nee na mooy ashra si xëj yi nekk nii ne ko mu ne dégg naa hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci tabaraani bu wér ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na wal fajri wa layaali al ashri mooy lan mooy ashra si mooy fukki fan yi nga xam ne ci ngeen di rey islam dina jàngal roy lu baax tabaski mooy roy baax ngeen ca Kaaba ga naan labbayka allahumma di tur ay deret di jàmm yàlla daroy leen ñu ne boo bëggee tabaski bul dagg sa karaw bàyyi mooy sunna bu la neexee nag nga ne tabaski xaaral dem coiffé waaye bi salaay sam ni la ko jàngale boo duggee rek roy sunna def li yonent bi defoon da ngay oor da ngay oor tabaski dafa am oor soo tuddee ko dina ko da ngay yéene oor doo lekk doo naan ba nga ne madame lakkal ma ci res bi ngay jël lu yow sànni nii la ko da ngay xool ba rey boo reyee ne nag di dem ne nag naan ci res bi automatiquement indi nga dox loolu mooy suñu jaaraama asalaas la ba léegi ñuy jàngale rek fi nga jëm nan la ko islam nan la ko bis laaj sam jàngal ñu ne la bés yi bés yi namu ñaan la ayaamul ash yi bés yi namu ñaan la bés la boo xam bés la yoo xam ne loo ci ñaan yàlla nangu waaw mu ne si bi ñuy ñaane dañuy nekk na rabbana atina déedéet xam nga ñaan ay façon ñaan la ñaan du julli rek dàlla sa loxo déedéet dafa am ñaan bu gën a gaaw boobu ban ñaan boo gën a gaaw tàllal sa loxo sa borom mooy jàmm yàlla ki ki am dara toog naa allah ya allah mooy ñaan bi dina gaaw mooy yàlla ne leen bés bi bés yi dimbalante la am nga biddaat ci kër cinquante mille koy fay tabaski jot xaral koy xaar yére koy xaar loolu defal moom bala ngaa génn bi bu ko def loolu defal moom est-ce que jàpp na loolu est-ce que loolu masala est-ce que kenn ko bàyyi mu dem gën a faral sa employé pour société bi est-ce que yow kon nga def soo ko mënee soo ko mënee est-ce que yow kon nga def est-ce que dimbalante nga mbokk yi ne ci àll bi dina xaar nga denc kaay ci banque bi yàlla na woon fa dina wala yàlla la ashirin promotion taxaw na jëndal est-ce que jënd nga ah est-ce que màggal na li yàlla màggal wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub soo bëggee yàlla jox la keneen nga xam ne bu yëppee tigi màggal li yàlla màggal wala fa jiri wala yàlla marché yàlla ñu ko dig si ko mu ne la bés la yoo xam ne bés lu yàlla nga la itam xaal rayal nga ne ko ñëw ray bi pour laa ne mu ne la ma deret soxla ma ma soxla mooy rek mooy mooy ragal yàlla bi mooy gëm-gëm bi moo tax gis nga islam da ko war a bàyyi xel wala fii rek di dem de xam nga islam dafa nangu ci ders bi li tax ñu ngi ne bu ma demee beneen wax lu tax mu ne pour nit ñi seen xel nangu leçon yi amul njëriñ de loolu déggee ci leçon yi moo njëriñ ko tey islam nangu na moroy waaye moroy ci lu baax ah, islam da leen jàngal bàyyiwul dara booy nañu da ci dem gisoo suñ politiciens yi dañuy royaatee xaaral ma jaar bi kii jaar ko ma jaar sa bopp léegi kii mi ngi def lu baax dafa lu ni nit ñi ñoo ñëw te nax nit ñi boo bëggee ñàkk sama yaakaar bi dañuy commencé lu baax à la place bi nga tey ci tërës ñu jot ñu ngi xaar yow yaa ngi seetlu yaa ngi bëgg ndax nit ñi ne bëgg naa leen fonk naa leen est-ce que génnee ki nga ne mi ngi def est-ce que def na jëf dañu xaar du wax wax wax wax tey eh. islam ne la man jëf bi laa xaar jëf roy nit dangay roy ah sama réew am na problème xaaral ma génn indi loo xam ne nit ñi dina gis ne man li may wax am naa compétence yaa ngi bëgg maire bi ñu wàññil islam islam wala ñu tànnee islam bàyyiwul de islam nee na la booy tànn booy tànn tànnal islam lay wax yow de nit ñëpp bu ñëwee discours la islam ne la ak xoolal ko ci ko de gis nga boo tànnee ko am ci ko bu rafet mu ne projet lay nekk ñaar nga ne waaw borom ci bu taxawee borom xaalis taxaw koy tànn mu ne la ba léegi tànnal borom ci mu ne la borom xaalis borom jikko bu taxawee borom jikko taxaw mu ne tànnal borom xaalis borom jikko maanaam islam moom ku riche nee na la man yàlla damay jox ki nga xam ne albaatu shay laa yor ki ñàkk bu mën a joxe mbir mi islam bu organisé wu ñu dem ñëw jot bi salaay salaam yonent ne ko dama am problème daf la am problème problème boo xam ne il faut nga jàppale ko damaa war a commencé sarax yonent bi dañu ne amoon na ko wax dama nga tuddee nii mu xool yonent bi yonent bi réew xool ko mu ne ko waaw yonent bi man li ma bëgg a joxe man kenn ku ma wàcc sama ci dem bi daal di leen mu ne jàngal ne la ki nga bëgg mu joxe dafa war a am parce que boo jëndee koom ñu joxe albatul sheylaay mu ne islam ne la tàngal koom ci koom bu riche du sama yoon yëpp ñu ko war mu ne sa doom bu ñàkk ak bu riche bu ko ñaaree may bu riche mu ne tax mu ne la wax dafa ko ngir bëgg de islam moo ne la wala tan karam naa ba ñu cause ñun amul dara donc ñu ne ma xaaral ma jox ay baat yoo xam ne bu ngeen ko jàngee rek day tolloo tuyaam baat yi yàgg saari xar ak ñu war a doon ñu ñëw ci jumaa ji di kef kef gars yi dégg ñu ko wax gars yi léegi dégg baat yi di ko wax ñu ñëwaat ñu ne salaire bi ko ah problème amaan na mu ne ban mu ne baat yi ñu wax ñu koy zikkar baat yi yàgg saari xar pour tolloo gars yi gars yi riche même ba pare di wax li ñu doon wax loolu bi ne la ñu ne yàlla yàlla moom seen moom ma ci dara dara ma ci mu ne lii nag yàlla mu sëñ moo tax islam bàyyiwu la foo jëm bu na la nii foo jëm bu ne la nii bu fekkee dafa am looy incarné da nga war a teg programme xam nit ñi ñoo war a kàlla fu yeewu nit ñi benn problème rek la ñu am rek. ngeen déglu man ma rek la jàngal alquran wa in dina ko lislam bi fajjal allah wa tawakkal allah wa in yuridu an yaqta'uka fa inna hasbaka allah gars yi bëgg nañ respect bi nekk ci sëriñ si ak ci nit àdduna yi ñu dindi ko te bu dindi ko rek problème am ñaari yooyu mooy suñu sécurité dafa loo xam ne yàlla moo ko respecté wa atiiu Allah wa atiiu ulul amri ulul amri man ta ñàkk toppal yàlla topp yonent bi topp ki nga xam ne man yàlla ma la neex ma teg mbir yi ci loxo maanaam mairie koñ bi yàlla moo ko jiital respecté ko chef de quartier mooy premier escalier respecté ko rek sans complexe parce que dundin boobu lañu islam wala bu ko dundee da ngeen di nekk ñoo xam ne ñu civilisé ngeen ñu am ñu am personnalité sans mu ne ni ma tëralee ma ñaar bu ngeen tëralee loolu rek affaire bi jàpp imaam yi koñ bi la jox ko cëram du la wàññi dara yàlla ko di samp ni muy liggéeyal yàlla gars yi ci banque bi yàlla dañ leen fay waaye ki nekk ci banque yàlla di liggéey ci yàlla dana ko fay tubaab yi nga xam ne sax amul amul bu ñu liggéey loolu ba à la traité dañu indi dara sa talab kon respecté ko loolu ki liggéeyal yàlla liggéeyal yàlla liggéeyal yàlla ba yàlla jox ko jëm respecté ko loolu moo tax islam bàyyiwul islam dafa laa wax ne la bàyyi man ñu may tëralee jël bàyyi ka ñu may tëralee ne bu jëf bu taxawee wax jëf taxaw mu ne jàppal jëf jàppal jëf yow sax comme xaj ki nga xam ne moo bëgg a nekk maire boo gisee ni mi ngi dimbalaatee nit ñi ëllëg bu ñu ne dama leen dimbale dama leen dana leen dimbale waaye wax wax wax kese critiqué kese jikko la boo xam ne islam na la bàyyi critiqué indi dara tëralal programme wax la ñu mën ngaa am li nga bëgg saaga saaga mën ngaa am li nga bëgg saaga dugg ci problème bi jàpp nii la doon def nii la yàq bëgguñ loolu soxlawuñ ko liñ bëgg wan ñu yaay kan ah wan ñu sa xel wan ñu sa personnalité wan ñu sa expérience internationale wan ñu ah ñu xam ne ñun wóolu nañu parce que nit ñi loo wax wax arab ne waxal ñu xam yaay kan tant que ñuy déglu sa discours ñi ñi ngi ragal ñi ngi lay jàpp moo tax islam dina mu sakkan nga la yow féete ne ki féete woon jëf gañe ne ki féete woon teg lu leer programme bu leer te bàyyi critique bàyyi wax bàyyi naan parce que mbir la moo xam ne ay yëfi jàmbur la nga soxla il faut nga tëral leen plan pour ñu jox la nga tabax il faut nga indi plan sinon nan lañ ci dëkkee plan bu leer jaar ci norme yëpp ñu xam ne yow am nga expérience ci tabax yi moo tax ñu nangu seen kanam nit ñi léegi ñoo war a régler pour kaa pour kaa kenn régler islam régler na ci lan ci dal ci maanu ci nga bàyyi seen xel ci responsabilité bi nga xam ne yaa ngi koy def parce que yàlla du mu wax de mu ne. yàlla danañ dana laaj wala nasalanna lazina ursila ilayhim wala nasalanna al-mursalin monsieur le maire danañ ko laaj waaye ñu ko fi teg dana leen laaj de parce que ñoo ko ñoo ko choisir ki tànn ak ñi ak ñi ak ñi ko tànn yàlla ko de yonent bi dana ko laaj waaye dana laaj peuple bi ñi ma yónnoo ci moom te fekk maa leen gën a xam ñu ne waa yàlla ñu ngay laaj pour lan mu ne ku mën amal maanu moo tax islam yi noonu dina jàngal ne la wa taawanu alal birri wa taqwa na ngeen dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla mu ne na ngeen suturaante suturaale suturaale seen bopp suturaale seen bopp man satara musliman satarahullah boo suturaale seen bopp yàlla suturaale même sa sa sa xarit sa rak bu defee la nga ko wax mu ñëw islam la la ah, def nga nii lii baaxul mooy ci ni sa kalam mooy ci yàlla ñu yëkkati sa daraja parce que yaa ngi jéem pour def li yàlla wax du fu la neex nga waxee du la neex nga gàggantee nit nga jubante yéen bi salaay salaam ñu di daan def heure samedi dimanche altine talaata àllarba àjjuma du wax dara li muy xaar mooy mbooloo mi ñëw rek mu ne am na ci yéen koo xam ne nangam ak nangam ah rus na sax xoolu ko jàkkaarloo mu waaye léegi nag critique bi directement bu koy def tudd wax yooyu yëpp ay jikko yoo xam ne islam bañ na ko islam bañ na ko ñuy ñaan yàlla ci barke fukki fan yi nga xam ne yàllaa ko tudd wal fajri wala yaalil ashri yàllaa ko wax yàlla nag bu demee ba gëñ ci ay bés ah bés yu màgg ne lu ngeen ci ñaan ma may leen lu ngeen ci jëm daal teg man ci jàmm yàlla yi ma delloo leen ko yàlla mën a defante moo tax wala seen bànn bi dañ ko bàyyi xel jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi sëñ Fallou ko wax alxuraan la jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ba mu ñëwee kàttan yi daw ba mu ñëwee nangam dañoo bëgg yéen suñu bopp pël yi baykat yi nga xam ne tey gis nga sax danaa ko wax bëy bëy sax bëy sax day ñëwee foofu dama la waaj a xale kastaan bi dëgg la yàlla na màgg la waaye tamit def ko mu rek laa mun nga jàppale ngeen fala ci laa bi doppee yàlla moo wax ne bés yi bés yu màgg bés yu màgg mooy lan mooy dama ciy màggal ay nit nu la ci yàlla màggale mooy nga jaarale ko ci jàmm yàlla kon yow yàlla ñu ngi lay ñaan ci bés yu màgg yii nga xam ne yaa ko cité te yaa ne lu ci nit ñaan ma nangu ñu ñaanu kenn ñi taxaw sa bunt yaakaaruñ kenn yaakaar nañ ne ñaa ñaanuñ kenn ñu ngi lay ñaan lan la ñuy ñaan mooy troisième vague la quatrième vague la. yaa allah yaa rabbi yàlla bu ñu sonal ci Sénégal yaa allah yaa rabbi corona nit ñi jax-jaxal nit ñi tiital yaa allah yaa rabbi ci sa bés bu mag yi yàlla bu ñu jax-jaxal yaa allah yaa rabbi yàlla bu dindi ci Sénégal yëpp yàlla bu dindi ci Afrique yëpp yàlla bu dindi ci Afrique yëpp nga ne problème fekk yaa koy dégg mu jot ci yaa allah yaa rabbi bëgg nañ ci barke fukki fan yi ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke saalihiin yi nga xam ne ñaaroon nañ la nga nangu leen ya allah ya rabbi ah taal bii di Corona yàlla ko fay ya allah ya rabbi ci barke mbooloo mi ci barke Makka ak Medina ci barke laa ilaaha illallaah Muhammadu rasulullah ci barke miracle yi nga xam ne wàccee ko ci barke mboolem sa yonent bi sa yonent yi ñu ngi ñaan yàlla taal Corona bi yàlla ko fay fay boo xam ne du tàkk mukk mën nga ko nit ñi ñoo koy ñaan ci barke àjjuma yi ci barke wala fukki wala yaay laas yi wax nañu àjjuma yi nag ñaan la surtout imaam bi jógee kon ñu ñaan la ci moom mu jigéen الحمد لله الذي امرنا بالتقوى وابتغاء الوسيله وحثنا على طلب درجه رفيعه والفضيله أمرنا أن ربنا في بنفسي وسنى بالملائكة القدسي فسلس المؤمنين من جني وإنسي وقال تشريفا للنبي وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا في ناصر المستقيم وعلى آله حق قدره وتعاليم اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال وانصر حكومتها ورئيسها وشعبها واكمل المشاريع بايدينا يا رب العالمين واكمل المشاريع بايدينا يا رب العالمين واكمل المشاريع بايدينا يا رب العالمين يا ربنا يا خالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا انت ترى ما قد جرى فاقسم بالقهر من علينا بالصلاة فاقسم بالقهر من علينا بالصلاة فاقسم بالقهر من علينا بالصلاة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واشف عنا من بلاء كورونا واشف عنا من بلاء كورونا واشف عنا من بلاء كورونا واشف عنا من البلاء ما لا يشعرونك ليس لها من دون ذلك كاشفة ربنا اشف عنا العذاب من ربنا اشف عنا العذاب من